asalaamaaleykum coalition Benno Bokk Yaakaar APR allié mouvement maa ngi leen man la honorable député maire Moustapha Mbengue fa am rek benn message bu ma bëgg a jàllale eh, après bi ñu jógee ci suñu audience bi nga xam ne démb ñu ko doon def palais son excellence le président de la république recevoir ñu ah ma gis fa nag euh, loo xam ne tey moo ma jaral may toog di def vidéo je pense que tey jii mooy première fois. waaye nag li ma gis démb dafa nekk loo xam ne man nag du ma magum xamoon naa ko mais magum waxoon naa ko la démb gis naa ne ñun waa coalition Benno Bokk Yaakaar ay jikko yu nekk si ñun yoo xam ne du ñépp nag li may wax nii waaye ñu ci ëpp jikko yoy lañu yore gisna démb ay jikko ay nit yo xamné ne soxor moo nekk si ñoom ba mat sëkk soxor bo xamné jaral na len yow soxore la yow ba xex Sénégal bi ñëpp perte waxuma son excellence Macky Sall perte de mais Sénégal sax perte soxor nak fofu la yam gisna ay nit yo xamné amuñu reconnaissance te reconnaissance dafa bokk ci qualité doomu adama moy nit yo xamné lépp lo leen mënti defal ci lu bax buñ ko gis jamais de la vie gis na ay nit yo xamné sen intérêt personnel mom rek mo leen yëkëti gis na ay nit yo xamné reuy nañ reuy gi nga xamné ne considéré wuñ benen nit budul ñom seen bopp lañ yaakaar ne ñoom ñooy lépp ci àdduna bi la ma gis démb gis naa ko woon ci PDS ba ma fa nekkee ba ma ko gisee dama puus ndànk xajal leen dem sama yoon waaye gis naa fi mujje gis naa man tamit fa ma mujje loolu nag tey ji dama kaa commencé gisaat ci biir tey suñu coalition bi muy benn bokk yaakaar wala ma ne APR ndaxte gis naa ne man mii kat tey malgré li ma def ci parti bi malgré li ma def ci nit ñi malgré li ma def sax ci département de Kër Massar ba egsi fi jarul nag ñu ci xóotal gis naa ne tey am na ñu ci bëri tey ñoo xam ne man dama nekk benn jeune pour ñoom yaakaar nañ ne man ma tax tay lañ wara am amuñu ko man ma tax fañ wara a egg egguñu fa bu ma poussé rek ñoom dana ñew accéder dal di àgg am liñ bëgg loolu lañ yaakaar def nañ ko nak ci élection yi passé bi ma président jiitale jox man récépissé département bi xex yi amul fu mu jogé wul waye d'accord gagné gañewuma waaye nag ñoom ñëpp kenn gañewul parce que Dieu est juste ndax ñoñu seen yéné moo doon naa daanu ci département bi ñoom nañu gañee seeni commune mais yàlla moom du reyal kenn ay noonam ku yaakaar ne nag nit teraanga bi mu yore moo ko jox boppam wala li mu nekk moo ko def boppam wala yow yaa ko def nax nga sa bopp fi lépp lu fi am yàlla ci boppam moom moo koy def nit yàlla moo ñu tracé suñu dund ba keroog ñuy dugg bàmmeel te gis nga loolu ala kulli alin mooy am ci nit ku nekk te man loolu laa gëm ndax ci loolu lañ ma yar ndax samay kilifa ay imaam lañ démb audience bi les jeunes yi wax ñoom Demba Daaw ak autre lu ci bëri dëgg la liste bi biñ koy defar man de Pape Samba ma ma woo ne ma nañu dugal ñi am ay nomination nañu dugal ñi nga xam ne ay élu lañ nañu dugal ñi nga xam ne dañoo dañoo yoroon ay récépissé waaye nañu tànn tête de liste yi nga xam ne ay apériste lañ waaye dañoo demoon liste parallèle ci locale yi waaye aussi nañu xool ñi nga xam ne ñoo jiite ay structure du parti ci si commune yi waaye xool ay identité remarquable koo xam ne xam nañ ne kii son na ci parti bi daj na ci lu nekk waaye yorul benn responsabilité ma toog ministre Amadou ak Owama ne ma nañ daje pale man ak yow ak asso Cheikh Mbacké Ndiaye ak le conseiller spécial Omar Sow liste bañu ñu 258 personnes la won foofu la yem liste bobu man amna samay nit yu ma proposé won du lim seeni tour mais ñu ci bëri bama ma wowe après wala bama xolé liste bi nekk ñu si liste bi loolu nekk na lu yàq loolu nekk na lu may jaxas sama diggante ak samay nit loolu nekk na luy indi frustration waaye li ma gën a métti booy waxaat nañ ko les jeunes du Cogère la ay opposition gis naa leen ci biir salle bi man dama yaakaar ne daje bu mel nii opposant boo xam ne taxawul déclaré publiquement ne bàyyi na fa mu nekkoon day jàppale président de la république kooku warul dugg ci salle audience boobu ñuy bayyi ay responsable APR ay militant APR yoo xam ne président rek lañ gëm ci biti Lool warul nek. Té lool dama koy confirmer parce que man duma fan. fen loolu gis la ndax bi audience bi tassé man lañ jox xaalis bi may joxe paas Té ñoo ñep ñew nañ ci man ku ci nek ma jox la sa transport nga dem loolu rafetluwuma ko Té ñuko def ñun ñoo daan tànn liste bi ñi ko dugal mooy ci ñii ma lim ku ko ci dugal opposant yooyu kan moo leen dugal beneen bi si des 258 personnes yooyu romb nañ ko parce que 327 personnes laa jox transport te 258 cent cinquante huit la ñu convoqué woon loolu surprise boobu ñan ñoo leen dugal ñan ñoo leen mën a dugal ña nga xam ne xëy na ñu ngi liggéey pare ñam am nañ accès mën nañ dugal nit palais ña nga xamné xeyna am nañ doomu tànk yo xamné mën na leen permettre ñu dugal nit palais man mënumaa dugal nit bir palais ndax man liggéeyuma palais depuis laa nak way liggéeyuma palais waaye lolu dugg noonu tay gi war won dugg parce que dañoo tok teunk defar lis kon war waru ci am te ñun nak suñu parti bi dafa bëri ay war dafa bëri ay coup bas guerre froide bi nek ci ndax lan désigné ko départementale point barre ñu election élection locale du élection Macky man lolay locale élection si on les six communes du département tay suñu jeunesse ñu ci am ndax man maire bi 133 jeunes embauchés 147 jeunes. jël naa leen defal leen ay contracteurs ñuy fayeku di yor seeni njaboot jeune bu jàng ba am bac ma may la bourse yóbbu naa ay jeune bitim réew ñu defee ay formation lu nekk def naa ko ci jeunesse bi loolu tey suñ ko amoon si juróom-benn commune tey kon suñu jeunesse bi kon du ñu sonn kon gañe woon élection yi dafa jaadu te gañe woon ko gañal ko président la ndax loolu dimbale président la président munu defal ñëpp ñun tey ñoo war a nekk ay responsable tey am ay responsabilité man diko jappalé ci jeunesse bi diko jappalé ci femme diko jappalé ci ci population bi di ko jàppale ci liggéeyu dëkk bi waye nak je pense que comprendre ñu lool ñun APR bari nañ ay intellectuel yu malhonnête yo xamné jël nañ ay kàddu wax ay wax yo xamné bañu ba ñuy jàkkaarloog yow waxuñu ko ay wax yo xamné ay analyse yo xamné ne teguñu ko ci xam-xam dañ ko tek ci parparlo gis naa ne nit ñi léegi xaalis rek lañ gëm xaalis rek lañ gëm fii day tey la fi ay ren responsable am ci département bi waaye xëy na man kese maa fi nekkoon commune yépp laa doon dugg amul commune bu ma deful amul waaye nag démb gis naa ne loolu yëpp fàtte nañ ko ndax lan alal moo taxaw tey waaye nag dinaa leen defal lu yomb duma bàyyi parti bi de ndax nak le président de la république defal nama ma li ma war defal yeb do deselu dara man dara deselu ndax nak man je le considère comme un frère ndax ba may ànd ak moom nekk ci PDS di xeex nekk makiste xawma won dana nekk président de la république waye bam mu président de la république delloo nama ma loyauté bobu fidélité bobu gis naa motax ma jàpp ko comme un frère soxnaam Marème Faye Sall sant ko gërëm ko ndax nag Kër Massar fii yaakaar naa ne ñu si bëri tey seen bët xonk na ñaari ci mujj am na ko fi feebar 15 millions di ko faj ba ma ko waxee moo ko yóbbu bitim réew faj ko ba mu wér kooku tëdd na 9 ans feebar soxna Aminta Dieye mi ngi may dégg bu seetaanee vidéo bi xam na ki may wax kooku tey wér na ba takk jabar ba am doom am na ko xale boo xam ne papaam jaawale na tuufaay ak euh, li ñuy fajee jumbax def ko ci bët bi lakk rétini ba xale bi gumba yaay ji yanu ko fekk ma mairie ne ma kii dafa gumba waaye gumba bi accident la explique ma seen minum demee wan ma këyit yi koy fajee Tunisie ma woo première dame explique ko mu jël xale bi ñu dem yóbbu ko Tunisie ne kii mënuñu opéré ndoo ñaari bët yi ndax du ko attan ñu opéré benn bët bi mu ñibbisi ñu ne trois mois dafa war a delluwaat pour opéré waat beneen bët bi délai bobu sax jot na warna na delluwaat pour opérer benen bët bi kon première dame dama koy sante momi diko gërem ndax loolu yépp bu da fay jappalé borom këram waaye dafa maa da dafa xol timit demb man nama taxawé won borom kërëm ba demb di demb kon ñooñu muy son excellence ak déssé deseluñ ma dara dama leen di sant dama leen di gërëm te duma leen mësa bay lama la ma leen téyewee noonu leen ko né téye mais nak département bi di Kër Massar di département bu bess bo xam nak xamna xam ne kenn gënuma ci sonn kenn gënuma ko bëgg tamit aussi té lepp lu fi di def defit la fekk nga ma def ko kon tay ji su dé né comportement yi mo am demb dem na ci Pape Samba na ko Pape Samba nañu bayyi ñepp ñu dugg parce que lima gis fee ci bitti nañ duggal nit ñi Pape Samba ne ma demal nga xol salle bi monsieur le député maire salle fess na ñepp mënu ñu dugg ko

haine animé ko soxor animé ko ñàkk luwaayete ko ñàkk gëm yàlla animé ko moo tax ma ne lii politique jaru ko man yàlla laa gëm du politique ma may may yaakaaruma loolu yàlla leen bind force ma am ko déposé woon naa sax sama candidature pour législative député yi danaa dem jëliwaat samay papier ci fa ko déposé woon ma toog gérer samay activité politique ma bàyyi leen nag ñu xool guerre froide bi mu jeex mu yem fi ñu xool nag ba xam ñoom ba ma poussé ba xam la ñu bëgg ñoom danañ ko am walla déet comme gëmuñu yàlla man ko gëm yàlla laa. décision bi ma jël pour jële samay activité dinaa woote conférence de presse dimanche à 15h Kër Massar nool ci crèche bi pour may yaatal ko yaatal li ma fi wax yëpp leeral ko ba mu leer ba ñëpp xam ko incha allah. mangi sant ñep nak di gërëm ñep di jéggalu nak ci vidéo bi ndax li du sama habitude waye li ma gis dañ il fallait que li mu am jërë ngeen jëf